be Fada wala barakatul musafa ya mawlilatu laqad dal إن الذي لا إله إن الذين إلى غزال yaaman yaaman yaaman yaaman yaaman yaaman yaaman yaaman yaaman bi aldaay qaadin ya rab saaru ya mustafa ya rasulallah ya man bi aldaay

صلى عليك بدا لمن ملاك دار مجال لي ديك بدا لنيا بزار صلى عليك بلا دين بلا قدر مجال لي بك بدار يا بشر صلى عليك بلا دين بلا قدر مجال لي ربي ربي ربي ربي ربي بما يزرع الحسن فجاه

ma dama sallallahu Allah wa إن الذين إلى سرسان قد خسدوا زيارتي فارقوا دارين أو زارا إن الذين إلى سرسان قد خسدوا زيارتي فارقوا دارين أو زارا يا من بأمداه تأتيني البصر يا مصطفى يا رسول الله يا بصر يا من بأمداه تأتيني البصر يا مصطفى يا رسول الله يا بصر صلى عليك بتسليم بلا عدد باق قديم له الأساء والقدر يا منتخى يا رئيس الأكرمين معا يا من بأمداه أن ينتفى الكدر يا منتقى يا رئيس الأكرمين معا يا من بهم داعي أن ينتفى القدر يا منتقى يا رئيس الأكرمين معا يا من بهم داعي أن ينتفى القدر صلى عليك بتسليم بلا نفد من لا شريك له والاسم مقتدر يا مجتبى يا إمام المرسلين معا يا من لخدمته ما أبتدر صلى عليك بتسليم بلا قدر من جادني بك في دارين يا بصر صلى عليك بتسليم بلا قدر من جادني بك في دارين يا بصر صلى عليك بتسليم بلا قدر من جادني بك في الدارين يا بصر وشكري لمن كل بسارة lépp lu ñu bëgg ñu ngi koy fas ci sa jëmm ji ak si gis gi ñu ngi koy gis pas-pas bi ñu am ci liggéey sëñ Tuubaa na mu ko waxee woon rek nañ lay yeesalaat kenn amu fi kàddu kenn amu ci lenn mbàkke ku dul yow mbooloo maa ngi ñu la koy yeesal ñu la koy jébbal di la jébbal liggéey bi di la ñaan nga nangul ñu di ñaan nga yàgg fi loolu mbàkke téwéer ànd ak ngërëmal sëriñ Tuubaa yàlla nga daje ngërëmal sëriñ Tuubaa nu ànd ko ak yow mbàkke baal jërëjëf mbàkke sant nañu déet defal ndànk déet defal ndànk yéen daayira Miftahul Nasri waa kër Serigne Touba yi njàng mi neex na Serigne bi yéeg na leen bi mu egsee sëriñ Alla jotul na ko liggéey bi leeral na ko doxin bi sëriñ bi rafet rafetlu na lépp mu ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm di leen tàllal loxo rek fas yéene ànd ak yéen liggéeyam sëriñ tubaa bi di leen ci soññ ni ci ciy soññee boppam bëgg nu feetli suñuy laxasaay liggéey bi rek di suñu yitte ndax suñu njëriñ lépp mi ngi ci liggéeyal sëriñ Tuubaa kon sëriñ bi mu ngi leen di ñaanal itam tawfeex sëriñ tubaa gàttandu leen ak tawfeexam gàttandoonu ko ba lépp nekk Serigne Touba gàttandu na ci ak tawfeexam nee na kat tawfeexi Serigne Touba kuñ ko gàttandoo sa lépp day yomb sa lépp day yéwén sa lépp day barkeel kon sëriñ baa ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi leen di ñaanal ngeen dellu ci jàmm dellu si waat fi jàmm Serigne bi taxawu leen ba li ngeen yéene ci liggéey lépp ngeen mën ko àggale jërë ngeen jëf kon Serigne Serigne Alaaji na ñëpp tàllal kon yéen waa waa Hifnaa wa Nasr yow xoolal fi nga nekk ni mu sëree fi nga nekk ni mu sore ñaar fa fa mi ngi nii dinaa waaw for for xam naa ko for di maar xam naa ko xam naa ay at yi dañ baax lamp ma defal tàllal leen yéen ñi ànd ak sëñ Alaaji Njaay bisimilah daayira forte de Marmi sëriñ Mor Mbayang Thiam oh, waaw waaw ngeen jëf yéen mbokk taalibe ngam nga xam ne waa daara Miftahul Nasri asalaama kër sëñ Tuubaa ñoo ko amal si seen diggante ak sëñ Tuubaa Mbàkke Bachir siyaar bi nag di siyaar boo xam mën nañu wax siyaar yeesalaal la ndax xam nga ne sëriñ Tuubaa Cheikh Sidi Mouta Mbàkke ba mu fi nekk moom lañ mujjee siyaar si xalifa sëñ Tuubaa suñu borom dogal sëñ Muntaxa ñëw nekk xale bi sëñ Tuubaa ñu ñëw ngi yeesalaat seen liggéey ñu ngi fekkoog ñi nga xamante ñooy ŋànk liggéey bi ku mel ni sëñ Alaaji Ndiaye ak sëriñ Daouda ak sëriñ Yuskor mu mel bi euh, comme ni nga ko waxee léegi siyaar bi di siyaar yeesalaat ban kàddu ngay sant si li nga xamante ne moom ngeen jëlee ci bi ndax jot ngeen dégg bu baax sëñ Muntaxa li mu leen dénk ci biir alhamdulilah rabbil asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh sëñ Mouhamed ñu ngi dolli waat di ziar baax dolli sunu cant si yéen seenu taxawaay ci lépp loo xam ne ñu ngi koy nas di ko def jéemale ko Sëñ Tuubaa ma tax Sëñ Tuubaa rek dañ ci nañ tàmbali ci nañ yem waaw ba tax na loolu am ngeen si wàllu yéen it siyaar bi nag alhamdulilahi rabbil alamin bañ ko nasee yéene ko tàmbali ko ci bisimilahi rahmaani rahim tey ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin tabbal liggéey bi teg ko ci loxo Cheikh Sëñ Tuubaa Cheikh Sidul Moxtaar sant gu rëy nañ ci am ndax mbooloom gone la mbooloo moo xam ne mar nañ Sëñ Tuubaa mbooloo nañ moo xam ne mar nañ xasida yi di ci gëstu di cib liggéey te ba fi sëñ bi toogeeg léegi booba léegi ñu namoon ne danañ yeesal seen jëmm yeesal liggéey bi yeesal mbooloom teg ko ci loxo sëñ Touba Cheikh Sidul Mokhtar tey jii rek alhamdulilahi rabbil alamin nañ mën a wax ñu def ko pësteef sëñ bi nangul ñu ko alhamdulilahi rabbil alamin nangu bu boo xam ne mbooloom yëpp teg nañ ci seen seen seen bët mm, toogaay bi lu mu yàgg-yàgg mbooloo bi bi ñu daje gisee maanaam jëmi sëñ bi tawféex gi taw tawféex gi maanaam dafa dafa fees xol ba kenn ba kenn xamatul looy wax kon boog dañuy delluwaat di santaat yàlla bu baax di ñaan yàlla ñu sëñ bi nangul suñu siyaar ci barke la mu waxoon ne inna lazina ila sarsaara xat xasado ziyaarati faaraxu daaray ni aw saara ña ko fekkoon sarsaara de sunu borom taxale na leen bàkkaaru àddina ak àllaaxira waaye la mu ca teg mooy bis boobu ba léegi fu fi waaye jógetee ngir jëmmam sunu borom taxale na bàkkaaru siyaar si ko sunu borom taxale na bàkkaaru àddina ak àllaaxira kon sunu ziyaar bi na bokk ci loolu ci na sunu borom dogal moom it bokk na si jëruñ daay seen daara mu mel ne tey da nga ñëw def siyaar yeesal euh, comme sëñ bi yeesalaat na seen diggante ak moom fan ngeen bëgg jëm incha allah. waaw di sant sëñ Tuubaa baax di sant it sëñ Alaaji ci liggéey bu kawe bi ci liggéey bu màgg bi nga xam ne daanaka mën nañu wax ne lu bëri ci moom la def na ci yitteem def ci pas-pasam def ci yitteem di sant it mbokki taalibe yi ñoom it depuis ñu wàcc siyaar bi ak di ko wax. boobu ba léegi kenn ci ñoom yamul moo xam ñi nekk fii la moo xam ñi féete bitim réew la waaye ñoom ñëpp ku ci nekk daa meloon ni bisu tey bi moo waroon amal siyaar lépp moo ko waroon def kon ak sant la ñi ngi sant sëñ Tuubaa bu baax li jiitu rek mooy ñaanal sëñ bi moom na fi yàgg lool te wér lool ndax bisu tey bi mbégte yu ñu def ci ñun sunu xool dafa fees tooy ba suñu kàddu génn sax du du yomb kon daal di gën ñaax ñi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bii te war a war ko defal sëñ Tuubaa ñu gën a takkaat laxasaay bi te xam ne dañuy doog a tàmbali dañuy doog a door waar wi nag moom du jeex du xaaj saa su ne dañ ciy nekk rek te di ko defal sëñ bi di ko seedal sëriñ bi mu jaral ñu it suñu bopp jaral ñu suñu lépp la mu waxoon ne loo dëxër niyaat yi waa yenn mi wa xidmat yi wa ruux yi wa jusmaani wa kulli bi laa sukkali ñu jël suñu lépp rek jëbal ko sëñ Tuubaa jëbal ko liggéey wii fas yenn ba keroog ñuy làkk ngërëmal sëñ Tuubaa ci barki xasida yi jërë ngeen jëf jërëjëf ñu ngi leen di sant yéen it bu baax ci ndax boobu ba léegi liggéey bi ñoo ñoo ko ànd boobu ba léegi yéen a ngi ci lu ne jàpp ngeen ci jàmm yombalal lépp defee ko it nu muccee ayib kon ñi ngi sant leen di leen sant di la sant sëñ Mohamed di sant ñi ngi àndal ak mbokk taal bi ñu ngi àndal liggéey bi yëpp di ñaanal télé bi it mu bokk ci télé yi nga xam ne ñii tiitoroo lay doon ci yoonu murit ci barki xasida yi barki sëriñ jërë ngeen jëf ñu ngi jégaluwaat bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf sëñ Dame Alaaji yow mi ñu bàyyi la nga tàggatoo mbokk taal bi lay toll si Bichri TV ak tam yaat kàddu soññe ngay eh, yaatal si mbokk taal bi ñu ngi lay taw ndax xam nañ ziar dafa loo xam maam mënta ñàkk si murit te murit waroo toog at demoo ziar si kilifa su mboom dogal comme ni mu ko waxee sànq rek ngay ñëw yeesalaat seen diggante seen Muntaxa looy soñ si mbokk taal bi lay teewlu si wàllu ziar ak tamit eh, xeeti demee noonu. alhamdulilah waaw li ma ciy teg mooy billahi la ilaha illa huwa hayati wa mamati wa harakaati maa sayyidina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam sëñ daal wax na ko léegi lahoo dëhla niyaati wa ilmi wa xidmati wa ruuhi wa jusmaani wa kulli bila suqali kon nii nañ fas yéene liggéeyal sëñ Tuubaa jël sunu lépp jébbal sëriñ Tuubaa kon nag ni nga ko waxee ni ab murid war ab diir dana am sax loo xam ne war nañ cee si nax siyaar bi bi ñu ko jàppee rek Cheikh Sidi Moxtaar nañ ko jàppaloon rek sunu borom def li mu def ñu daal a ah kon de sëñ Muntaxa kóllëre doxoon na sunu diggante ak moom ci xasida yi lii de ma ne dañoo war a delluwaat ginnaaw tuuti waajal ko tëbaat doog a mën loolu moo waral sax mu jërub diir ba ak si kaso rajo bi waaye waroon nañu ko bu yàgg di xamal ne mbokk taalibe yi nag maanaam kuy liggéey at ba at ba bis ba bis dellu si war ngaa mën a jébbal lim gàtt-gàtt nga jébbal sab liggéey Serigne Touba di soññ murid ci ne Touba li habdin muridin saadihin lohumo bi xidmatin aw bi hobbin aw hadiyaati kon boog loolu tënk na wax ji yëpp kon boog bu dee dañuy aspiré dañuy liggéeyal sëñ Touba nañ xool ni ko sëñ bëggee ndax a sax nee na balaa ngeen maa xam ma balaa nañ xam ni ñu liggéey Sëñ Tuubaa te sellal ko te fas yéene see am dara wax wax wax bi daal ak tontu mooy ngërëmee yàlla nañuy sàkku Sëñ Tuubaa nañ jox suñu lépp soxla wuñ ci dara an fa suxuma am waalewum la saxaaba yi defoon bi am na lahumul jan yaa may dégg kon boog nañ Sëñ Tuubaa daan na wax ne saxaaba yi seen bàyyi ci diine loolu rek soññi gàttal wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi sant bu baax sëñ Mouhamed jërë ngeen jërë ngeen waaleykum salaam sëñ Daara kàddu rek waaw kàddu gu mujj gi ah, weesuwul dara lu dul sant Serigne Touba ñaanal sëñ mu yàgg fi sant mbokki taalibe yi waaye sant suñu waajur yi suñu waajur yu góor yi yu jigéen ñi sant suñu mag yi suñu rakk yi mbokki taalibe yi ñëpp mel na ni ñoom ñoo doon siyaar ñun siyaaru ñu ndax li mu leen jaral ñoo ko ànd ba fii te ay fan lañ def lépp ñoo ko ànd ak ñun ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di leen ñaanal suñu borom guddal seeni fan wéral leen ba lii ñu amee ci lii ñun ñëpp ñu bokk ña teew ak ña teewul ak ña waroon teew yëpp ñun ñëpp ñu bokk maas si biir loolu salaamaaleykum wa rahmatullahi waaleykum salaam jërëjëf sëñ Daouda Gueye jërëjëf sëñ Alla Ndiaye jërë ngeen def yéen mbokk taalibe nga xam a ànd ak ñun di xam moo di siyaar bu daar waa daara Miftahul Nas doon amal fii si kër Serigne Touba si au niveau du général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir ñu ngi leen sant bu baax di am mbégte ak tawfeex di janoo saa su nekk seen télévision Mafatir Bichri TV di santaat هذا